baatiña amaada daa yàlla de defaru dara te yàqul dara mi yeeñaa bu akoole kee li nga xam ne loolu moo la ñe loolu la lay defaral nii be tiñaa la yàlla ne min mu tiñaa law di tabta yaaki su fekkee a yàqu xam nga ne li nga xam ne loolu moo yàq doomi aadama da nga tey nga def ko loolu moo tax nga yàqu min mu lafta dadaaroo la min mu dadar lawnti aya lonna aya ke aɓe ɗaɗala de ki nga xam ne dafa bëgg a defaru te dafa bëgg a baax xam na lii baaxal nit ak lii defaral nit loolu la gis mu def ko mu baax te dina baax majlisi kilimmalloku kama école kilimmalloku kama mo kilin neneman si place to ku kama ku kilin dammale mo ɓe ke kuuti mu ne borom daara yi sampuñ ko ci jaw école yi sampuñ leen ci kaw dara kenn taxaw ci kaw dara benn mbir rek moo tax nit ñi nekk ci dara loolu moo tax dara am wala doolu ke dokkooti ay doolu ke kotooti ay doolu ke faati ay doolu ke ɗimuti ay doolu ke suutiyooti ay doolu ke musooti ay doolu ke keenti mbir moomu am na ñu nekk ay baay am na ñu nekk ay doom am na ñu nekk ay mag am na ay nekk ay rakk am na ay nekk ay jabar am na ay nekk ay jëkkër am na ay nekk ay góor am na ay nekk jigéen mu ne mooti moo yeke mooti lan mooy loolu mooy nit na nite ali ñoo ke mooti na ngeen defarante yéen seen bopp ngeen nite ngeen nekk nit alaa la ko daake moo footi na ngeen def seen kër yi mu nekk kër yi nite alaa ni jumli ke moo dimuti na ngeen def seen doom yi ñu nekk doomi nite alaali teerooje moo teerooti na ngeen def seen xarit yi ñuy nekk xarit nite alaa la lonndooje mooyaa ñinooti na ngeen def seen xam-xam ut doomi aadama tulumaa bee manke mooti moomin bee puloo sodo moonteeti nekkul képp ko am ñaari nopp doomi aadama la am na ko am ñaari nopp doomi aadama mooyaa la jiyooɓe min mbala moonteeti képp koo xam ne suufee doomu aadama ci sa ci sa war war la fee yow doo nit. mooyaa la tiñaaɓe min mbala monteji képp koo xam koo xam ne doomu aadama du a am boppam ci sa loxo yow doo nit. nit de mooyaa selendira santo monte képp koo xam ne du mun a ekkati doomu aadama mu nekk ci kaw nit yi kooku du nit. am du ñilloon nii duniyaa nii man duniyaa na fay daa batal nii su fekkee da nga ànd ak xam-xam àdduna fi jëriñoo àdduna kon da nga ñëw pour sonnal àdduna waaye jëriñoo ne duniya baɗanndi ni yemande a duniya te kono moote yimbira su fekkee da nga sonnal àdduna nga dem génne àdduna kenn du la wax kenn du la xelaat te doo duñ la tuddati ci àdduna moom bar ni mu moote hani mi yeeyaa geera ñaamee yaa sikke fenti mu ne su fekkee doomi aadama nga mag nga nit te nitee nga donte gisuñ la waaye dinañ wax sa mbir te dinañ fi nekk nettali sa mbir moo di yem matu yi ka ñoo jeeku mu ne nit ñi nañu ruus ñii ñi sant ci sant bu rafet moo di yem matu yi ka ñoo fo fet niiraku nit ruus ñii xelaatante bu baax moo di yem malee ñoo bu rafet bu baax ali bee na suwo kono ali ka duniyaa bee la doo kuujee mu ne yéen ñëpp yéen a am seen kër waaye lépp loo xam ne àdduna soxla na ko yéen a koy liggéey seen ci biir kër yi. idiwuñanta bee de mu naan na yaa fi jee baale duniyaa denc sa doom dafa war a defar àdduna bi yëpp waaye ko bàyyi mu yàq àdduna bi yëpp. moo di min kalu imañan naa kalu la ye min ko ye wala ke li mu sopp loolu lañ warut a sopp li nga xam ne loolu lañ bay loolu lañ wala loolu lañ a moo kan min tiñaa wa war a daajile wala baa tiñaa la a gaw tiñaa mu ne doomu aadama li mu yàq moo ko gën a rey li mu ne yàq loolu loolu moo koy yàq ni ko amee duniyaa bi ñaar la duniyaa la bii ñaar lay yàq doo mën a bi diine bi gën a rey daf lay yàq doo ko mën a ni koy mel faamaayaa ci ñaar la faayaa la bee ci ñaar la jëdaa ci ñaar baay sa baay moo lay yàq loolu doo ko mën a yàq bee maa toole ci ala baaɓo ɓe ɓulariŋa koone noon kebbu koyis am na tuur waa jafaɓe jaa moo tokku tuuram bi am gàcce i ka mool la ñi moo dama moolu keela kunamaa ko yow nii ngay lekk si sol si si sa lu lawe ñoom si la nga xam dafa faro si yow ali sondaal ye sumool wulu mo naw ngeen ay sàcc ali algondalen kata koleen tunglu wulu a ne ñen ndaw ñoo xam ne duñ amul benn itte ñoom duñ yëngate duñ def dara yi jur leen algondale moolu wulu wala ku jënd kan ku ko noonu dama ndaw nge ngeen jur ñoo ne soppuñ lu baax waaye lu bon rek lañ sopp loolu lañ bugg moom nu moo la je ayala teew ayala neetum ka ñaanale kala wala ñaan mu ne doomi aadama tëgg kat la de nu mu teg nu mu teggee eh, eh, illeeram wala nu mu teggee jaasam wala wotumanga feere ke ganna joorandu ke fendi kon nag nañu fexe di def suñu liggéey kaay suñu liggéey suñu bagage nga xam ne moom la ñuy liggéey rek ministre ɗo o keñi ten tiña bagage nga xam ne nañu wona liggéeyal te duñu yàqal min de nafaala ade ɗo nafaala mu ne lu la amalul njëriñ du amal keneen njëriñ min de nafaala wala de ɗo nafaala lu la amalal njëriñ loolu wala amal keneen njëriñ moo la fen daa budu ja waaye kenn yëngu fi mbinaam mi nga xam ne moom moo. moo kenn doon la sama baal bi. mu ne ñu baax yi ñoo yor ngeen yor seen bi. ak nga baloo mi nu moo kenn doon la yaakaar. mu ne piis yi ngeen ay sol mbubb yi ngeen ay sol. nit ñu baax ñoo ko moo kenn doon la yaakaar. toog yi ngeen toog siis yi nit ñu baax ñoo ko defar. ñun kàllaama moo kenn doon la yaakaar. kàllaama ngeen gis mu rafet nit ñu baax yi ñoo ko defar. am na ñu wotoon moo kenn doon la yaakaar. waaye seen oto yi ngeen ay war nit ñu baax yi ñoo ko defar. dooleel yaay dal. ab yow ñu lay dugg nit ñi baax yi ñoo ko defar. boo ba ba loolu moo kenn dooleel yaay dal. parce que ñu lay dugg ngeen dugal benn baax nit ñi baax. ñoo ko defar ñaan yi fanaa ba luuta wala ñaan. ni ñu dundee noonu la ñu dundee ñoom tamit. ya min ñi ni yow wala cee ba min ñi noonu ndaa bee gëlaw ni ndaa bee gëlaw. mu ne li ut loolu la ñu defar yow tamit li ngay ut li mu la war a defar loolu la ñu defar. alikana song mu ne bu leen nangu mu. alike moo ndiwati. ngeen nekk doomi nit. allah baaxoo saabu la seen jëf gi njëkk. alaali foofu na nga suufee sa bopp. boole gele mu ne li nga defal sa baay wala sa doom yi dina defal bul jawoo dum mu ne la nga jugal bor bu bu bon soo dana bare lu bon i baa joola bul jawoo waaye dañ fekk ci fayu bu gën a ñaaw naa leen ak daali su fekkee da ngeen bugg seen bopp Aliou ñimmaa dum. na ngeen def bor na ngeen dugal bor bu rafet ngeen def te bor bu rafet. Ibali Joola Aliou ñimmaa. kon suñ la lay fay dañ la lay fay bor bu rafet. ya kayra woo kayra ji. xéewal boo gis. isajjo worowna ci njirom ñaari at ala mo woni dara yalla joxul la ko yeda ci ñaara kama yow li tax mu sakku la moy dama wara yakku lolu ma mo la ya ko dala fe ndaxte nit ki mo am lolu ci fexe ba fere be mu na mu na ne fana ma ci ko ci ka yow tama am na fexe bobu lu tax jaar ko fa ndax nga am lu mu am maa ngi koy ban mu ne réew mi na ban i ko de kelal fen bi ñu ne duñ nekk dara Macky Badada Macky sonn na Adama Badada Adama sonn na war noonu Badada war noonu sonn nañ min yem mooyaa ka moom ñi nga xam ne ñoo dajale nité wala mu ni la wuloo ko am ñi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi bekk na tam nité bi yëpp dana ci loxo ci li nekk ñun ak ñoom benn lañ di daala fay mooyaa dada yee yee hadila ñu dem ba ñu defar nité ñu jox leen ko ko ibe dalaaro la ni nga defar ibe dalaaro tarali ko la kuma kan da ngay fekk defar ci seen kaddu dunia mu ne aduna fen dani mburu ga ko xam ne yoru dara wala ñanta fen ni la mo kooku moo war a sakku dara ci loxo ki nga xam ne moo am dara bari ñu gorlolo le ɓe soolali ngol ɓeema diina ngol ɓe soolali ngama ñaani waaye gorlo ɓe moo moo gën a am soxla ci ñun ci kaw ñun ñu am ci moom soxla adi kaatele ndaxte moom lañu état mu jëfaan ñu. wax mën naa ñu mais mu ne yaa def mu dara. kon nañu xool moom war na mel lan moo ko defar. ba mu defar ay jënd naa te ak mu ne lu ko defee nekk lu mu am ci yàlla duñ ko ci am. a min gaayaa la wala keneen. yàlla lu ko defar loolu la ñu di defar. ay ñëwul man beneen sañ ñi kenn. mu ne sa doom yi jàngul téeméeri at. li woo daal ñu daal daani woo la man sakunda. ndax at bu ale la dumoni wulu lutax dinañ wulu wala xam ale moo gayno wulu lutax dinañ wulu ñu baax yi imam mon mu ne ruusuloo i bulaw ni yeeya sa morom ñi rawo imam mon ruusuloo i bulaw ni ñëw dee mu ne sa morom sa doom raw sa doom yi i be siri yaa ngi toog i be ka ci ñëw nga la ngay lekk maa ceeb ak ay ndaw foofu laa yem eh damaa la ah yow xam la waaye koy ka ci ñëw ndax yaa ngi lekk ceeb benn baalu waaye gàtt yi dañuy lekk ceeb bi fenn moom fenn lépp loo gis doon yaa ko moom ci biir aduna amee nit ñi bee li yàlla jox ñëpp wante fenn loolu daa mooy nit ñi arabu nit ki lim seen ci loxo kajjiɗo nen mbawilen sen xel musulmoolu ni ɓen da muslime suñ dajee ali kajjee nangel nen waxtaanal adamadiŋolu ni ɓen da doomi adama suñ dajee ali ɗiya muye nangel nen waxal mais haanida ki ñeme wala tijaat kooku mooy ku yàqu ikuma kan deytaati mu ne sa kaddu moomuloo ko i siifan danaa ñaami i siifanti ñaar ni nga mun a defaree sa bopp ci sa kaddu nga a yàqe sa bopp ci sa kaddu i mu ne sa bot bi moomuloo ko i nga mun a defaree sa bopp ci sa bot nga a yàqe sa mu ne sa xel bi moomuloo ko i nga mun a defaree sa إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد مسؤولا أولئك عن مسؤولا ألا كنت أعلم من يلاك آية ما هم مالك كرفان دم لن كنت دكان لك كوتي نعن كنت تبين هم ياركم ديزلات بوغا من سموك موت لتحنت نكنت أدي كنت mu ne na ngeen liggéey naani moo boobu su ngeen defarul loolu naani bu min na li a leen abal naani yaa tiña su ngeen ko yàqoo te fen solo la du ngeen am a fit fen kaani la dinaa def ay balu a donc naani fa leen sal min ga du ngeen su ma dugal leen ak jahannama mooy safara moo bee naa da mu ne ñëpp ñëw nañ moo saafaru moo bee haajoo jaarat mun naa wax ne a ay sa soxla faju na bari min ka fo niyaa waaye su fekkee li ñuy wax dégg nañ ko te ñu jaar ci ñu gëm ko dégg ko. moo ko gan seewoo ñu mbang booba. mu ne nit du kontaan ci réew mi fii. fa mi yow wuli yaa ko moo liggéey bu ma ji jaar. ñi nga xam ki nga xam ne su fenee nit ñi di yëngal seen bopp yi. nii la dari joo fu su fekkee sa bayre moo fa àgg amira ko moo la mujj da ngay yaakaar yow lan nga. aljanna de nit ku rëy du fa dugg nit ku mbagg du fa moo ñimmaanal idaariya waaye nit ñi baax yi ñooy dugg aljanna wala la suuf mooy ñooñu foofu mooy seen cër moo min mànke mooti ki nga xam ne du nit bu sabale ñi la mu ne ñetti mbir moo rafet si yow moo beeti yow nga gën a feebar njaay buula moo beeti nga ñàkk a dee ñëpp waaw moo beeti nga mun a ñàkk a ñëpp comme moo yaa saa ndax nit a mun a am boppam nit a mun a am boppam comme moo yaa saa ndax nit a baatu nii nii yaa soxla. ndaxte soo amee. wala mu dee la foofu. loolu mooy ñëpp dinañ ñàkk. nii yaa i i ci maata. su fekkee gudd nga fan. wala mu dee la faa. mooy ñëpp na dee. nii la yàlla. su fekkee da nga am bayre. wala mu may ñaanu ala. mooy ñëpp nañ yàpp suñu borom ñu jàpp yàlla. moo gannaaw ñaa moo fee. mu ne bu kenn ñee kenn. ni i moo yaataat. mu ne ki nga xam ne yaa ko gën a nite. moo gën a jëm moo fulandi. bu la bu mu la def morom kenn même moo yaa teeti ki nga xam ne moo la gën a ñari te moo di na ngeen def na ngeen nit ak si few bee la yaa ngeen defar lépp few bee saali wali lépp fekk leen few bee la kay restaurant wala lépp xewala na ci booroo di ngeen nekk dara ay trekere continué du ngeen nekk poson naa man jaw ñaama su dul loolu moo la poson yaada mu ne doomu yàlla moo gën a nekk poson ci kaw poson yëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu